Euh, fas yéene xóotal yaatal rek ci dossier ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye ci benn waxtaan bu nga xam ne rek xaritam bii ñuy wax sooda daal dina koy jot a amal indi benn révélation bu nga xam ne ñu baree bare bari fooguñu ko woon ci ki nga xam ne moom moo di Nabou Leye nan laak lan laak naka la nag lañ fa séenee daal di ñëw ànd ci ak yéen ci li nga xam ne rek moom moo di yaatal gi balay loolu lépp nag di sàkku si yow bu fekkente ne c'est la première fois que nga tombe ci suñu vidéo nga abonné te nga j'aime vidéo bi parce que tamit dina ci am solo bu baax a baax le fait que kenn umpalewul jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi dundoon nañ ko gannaaw rayu ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ak ki nga xam ne moom moo di Wally seen diggante ñoom ñaar ku nekk xam na relation bi nga xam ne moom lañ amoon nekk relation boo xam ne am na ñu mu neexuloon ba taxoon ñu doon jug sax di leen di jiiñ li nga xam ne moom moo di ay góor jigéen wante nag àdduna di dox ba ñu xëy suba ñu ne ñu kat faat nañ ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala ak kii di Waly li waral ñu faat leen nag ba jamono bi ñu toll nii yoon di def li nga xam ne moom moo di liggéeyam ci premier prélèvement yi mën nañoo jàpp que ne la nga xam ne moom moo si jóge nekk loo xam ne neexul benn yoon famille kii di Nabou Leye te moom tamit mu bokk ci ñi nga xam ne bari na ñu koy defendre wante tamit bari na ñoo xam ne ñu ngi koy sànni xeer li waral ñu koy sànni xeer nag du leen lu dul kënikat olof njay day wax ne du ma nangu ku ma du ma bañ ku ma sédd ci gaalu xaj wante doo ma su fekk may mar parce que tamit bu fekkente ne def nañ li nga xam ne rek moom moo di ay recherche ñu gis xam xel kënikat moom mii di Nabou Leye bokk na ci kaa yi nga xam ne sib sone nañ leen lool lool sax ci génnuk àdduna ki nga xam ne moom moo di Aziz Dabala te génnuk àddunaam nekk loo xam ne bett nañ lu baree bari moo ki nga xam ne moom moo di Wally ñu xëy un bonjour ñu gis que ne am na ñeneen ñoo xam ne rek ñi ngi koy jàppal tànk bari si ñoo xam ne nag lañ koy jàppal tànk xamuñu si lu bari le fait que danañ woote woo que ne ay xaritam lañ parce que kii nga xam ne moom moo di Soda yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci jëmm ji nga xam ne moom moo di Nabou Leye seen ànd ñoom ñaar yàgg na lool wante loraange mosu ko bëgg di yëkkati di ko teg ci deru doomu aadama mën nañoo jàpp que ne loolu seede la boo xam ne tey bu rafet la wante nag li nga xam ne moom la nabu Leye di séq kii di Aziz Dabala man ci li ma jàpp mooy lu ci baree bari moom xaritam bii di Soda yëkkati ay kàddoom moom xamu ci lu bari ndaxte tamit comme que demoon nañ ba yegg ci ne relation amoureuse doxoon na ci seen diggante ñoom ñaar dëgg la wala du dëgg loole ba tey tamit xamaguñ wante nag li nga xam ne moom moo ci mën a amaguñ jamono bii ñu toll nii te mu nekk li nga xam ne rek moom moo ci feeñagun mooy que ne moom lu si manti am ci kaa la bokk comme que soupçonné nañ ko nag di ko ragal deram ak di ko raxasal gannaawam yëpp ñoo si am parce que tamit loole du tax mu daal di mucc si li nga xam ne rek moom lañu koy toppee te liñ koy toppee nii nekk nag cas boo xam ne tey bu jafe-jafe lijjanti la ndaxte tamit bari na si ñoo xam ne peut-être buñ leen toppee ci genre cas yi ni mel bu ñu amul sens mën nañ saa daal di jaare rek mu yàq li nga xam ne moom moo di seen vie te moom mii nag lii dana bokk ci li nga xam day yàq vie parce que bu fekkente ne dañoo tudd wàllu ray rek dañuy jàpp ne jafe day am en tant que nag jafe yi nga xam ne moom dugal na si boppam du lenn lu dul li nga xam ne moom lañ ñëpp seede te ñii di takk der yi gannaaw bi ñu defee li nga xam ne rek moom moo di première prélèvement yi te ñu assisté gis kenn moom ndaw sii di Nabou Leye am na loo xam ne moom lañ koy tuumaal di ko ko toppee te loolee du leen du dul kat lii bi nga xam ne fi lañ reyee kii di Nabou Leye téléphone am mi ngi fi woon ci jamono yooyu ci ay xibaar nag moom mii dina bu lay génnoon a weddi ko ba mu set wecc parce que moom ci ay kàddoom jot naa xam le que ne amul benn yoon boo xam ne tey liñ ko waxal am na ndax moom heure bi ñu wax ne moom la fa nekkoon moom nee na heure boobu fekk na moom nekkul si barab boobu donte nag nekkoon na fa ci suba gi wante guddi gi nga xam ne tey moom lañ ko faat ñu gis que ne moom lañ wax ne moom la fa nekkoon moom loolu daf koo weddi ba mu set wecc bu fekkente ne nag wàllu libération en tant que ay analyse yoo xam ne mën nañ ko see def mooy ne moom fi mu toll nii nii nii waragu kaa sàkku lan moo tax ñu wax ko parce que njabootuk Aziz Dabala seen xol fi mu toll nii giifagul te ñoom dafa mel ne affaire bi day soog a bees ci ñoom ndaxte bari na si loo xam ne tey dafa mel ne ñoom dañ koy soog a sentir ci jamono bii ñu toll nii. looloo tax nag bu ñu bëggee tëb tëb nii rek. ne libéré nañ bàyyi nañ kii di Aziz Dabala mën nañoo am mbetteel bu rëy rëy rëy ndaxte fayantoo mën naa dox ci diggante ñaari famille yi ndax bu yàggul dara rek gis nañ ki nga xam ne moom moo di rakku Aziz Dabala bi kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko di xamle que ne moom yëgul woon sax ne Nabou lay dafa jël ay avocat ñoom nag ci boobu lañ profité que ne ñoom it dinañ jël ay avocat te ñoom jamono bii ñu toll nii ku leen tegal Nabou Leye ci seen kanam bu ñu gisee aw yat mën nañ ko ko jël dóor ko ko te yat nag yaakaar naa dafa bokk ci li nga xam ne moo gën a oyof comme liñ mën a expliquer rek pour mu gàtt kene kat mën nañ koo rey parce que affaire fayantoo lay doon ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo di famille bi dem gi nga xam ne Aziz Dabala daf koo dem daf leen a metti tellement que ñoom mënaguñ ko accepter ci jamono bii ñu toll nii te yooyu yëpp. bokk ci yi nga xam ne tey ay cause la yuy waral kii di nabu Leye bañ a génn ci biir kaso bi le fait que nag mu ut avocat peut-être loolu képp koo xam ne tey da nga amlante ak yoon am nga si droit pour nga ut ko ndax gis nañ sax rakku Nabou Leye bi gannaaw kàddu mu yëkkati que lu tax mu koy ut parce que moom it xamoon na ne kon lii yëpp am na nangam nangam ba ñoom it ñu jug pour ut avocat ba gis nañ vidéo biñ ci mujjoon a def sax ki nga xam ne moom moo di Kumba Gawlo yëkkati woon si ay kàddoom këne woon nañ teg lépp ci suuf ndaxte moom ut na avocat te loole ñii di famille bu ñoom xam lañ xamle nañ que ne yëguñu ko tinnuñu ko moo taxit ñoom li nga xam ne moom lañ doon def di aw weccal woo xam ne ñu ngi ko doon dajale sax dañ ko mujjoon daal di arrêté lan moo taxoon ñu arrêté ko parce que gis nañ que ne dañoo jàppoon ne kii di Kumba Gawlo moom lim leen dikk defoon na ko ba pare fekke na affaire bi alors que demee woon noonu ci li nga xam ne la jot ci ay nag bu fekkente ne yooyu yëpp am na ñu xëy un bon jour gis que moom mii di Nabou Leye bàyyi nañ ko maanaam tijji nañ ko mu continuer li nga xam moom moo di ay activité fii ci biir réew mi yeneen problème yoo xam ne rek mësuñu koo xalaat mësuñu koo yaakaar mën naa am kon nag li nga xam ne moom moo logique jamono bii ñu toll nii mooy que ne mën naa continuer ba tey di nekk ci li nga xam ne rek moom moo di biir kaso bi ba keroog ñuy pare li nga xam ne rek moom moo di lijjanti yi ak gëstu yi. bu fekkente nag kaaw ki nga xam ne rek moom moo di sooda parce que moom mi moo def benn révélation boo xam ne ñu baree baree bari ñu ngi jàpp que ne kat mbir mi luus de am parce que moom mi nga xam ne que ni bu fekkente ne kii di Nabou Leye moom moo def li ñuy wax nañ ko tëj ba damm si caabi ji parce que yoonam nekku si. alors moom mi nga xam ne que ni Nabou Leye xaritam keuse la maanaam xaritu benn bakkanam la ah ñu jàpp que ne kat nit bu fekkente ne dafa nekk sa xarit mu dem ba toll ci yenn moment yoo xam ne yu méttee métti la yow ak lu mënti xew ak lum tàng-tàng wala lum sedd-sedd yow war ngaa bokk ci ñi nga xam ne tey da nga leen di taxaw ndaxte dañuy wax ne sa xarit wala boog sa mbokk dimbali ko bu tooñee ak buñ ko tooñee bu fekkente ne moom moo tooñ nan nga koy dimbale mooy nga xamal ko ne ko moom moo tooñ bu ko defee nag nga jàppale ko bu fekkente nag dañ kaa tooñ nag nga taxaw defendre ko publiquement ba ñëpp xam ne defendre nga ko kon moom mii di soir bu fekkente ne tëb na yëkkati ay kàddoom xam le que ne nabu Leye bu fekkente ne moo tooñ nañ ko tëj ba damm sa caabi ji day mel ne moom jugul pour dimbali ko waaw ndaxte day mel ne comme xaw na ko yéene daal ñu tëj ko kon li mu waroon def mooy même bu fekkente ne moom Nabou Leye moo tooñ moom waroon naa am beneen façon boo xam ne tey moom lay waxee kënekat même bu tooñee négociation war naa mën a am yoon war naa mën a dawal compréhensif ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xarit loolu lay jëriñ moroomu xaritam kon nag loolu liñ fi bëgg a jàngate mooy ci milieu bi bari na si ñoo xam ne tey ñi ngi ànd nii wante tolloo wuñ ay mbagg parce que ku si nekk du yéene jàmm sa moroom te loolee bokkul ci li nga xam ne rek moom mooy doxal ab ànd kon nag loolu lañ dikkoon pour partager ko ak yéen rek di leen di jaajëfal nag bu baax a baax a baax ci topp gi safoo gi ak faale gi seen chaîne YouTube Partout TV di leen di wax ngeen di woy di abonné saa su nekk ba benn yoon ñu dikkaat ci yeneen jàngat incha allah